comme ñaar ca Kaffrine Louga moom am na téeméer ak ngeen fukk ak benn cent quarante et un ci élémentaire téeméer ak ñaar fukk ak benn cent vingt et un ci secondaire li dee ne ci réew mi l'enquête ne ko ak bakkan yu sakkan yoo xam ne ña leen di faat rek faat ci moom dafa ëpp sax ba jéggi dayoo laas ne njabootuk Ibrahima Samb taximaan ba ñu faatoon day am na lu leen defal njiitum réew bi Macky Sall moo leen woo ci téléphone seen mer giif na gàkku moom defal Lamine Diack yëral laas mi ne cinq yi waslu àqam dina def këmtalaay kàttan Balamine Diack moo mee yoon teggi ko loxo Frank Timis librem day des soo ko seetaat libération ne ma plainte yi day dañoo wër ndomb Frank Timis ñu seeti tribune mi ne Abi Ndour day seena ci xaaf léegi day rakk Youssou Madjiguène Ndour bi mooy chargé de mission bu Khalifa Sall laas ne démb day candidat yu instituteur adjoint yi day dañoo mer ndax ne ñu Serigne Mbaye Thiam daf leen bëgg tuutal moo taxit examen ba mu leen tegaloon boo leen ci wax seen copie la ñu xolite sol seen dàll ñibbi seen i kër Xadim Mbub mi toj Ndakaaru day mi ngi ci la tribune moom xadi ne ngoyaan dey maa ko seeyal tëggaat ko defaraat ko kon ba mu neex a déglu ku ne gis ci sa bopp ane boppuk Diouf Walf Quotidien ma ma nga ñaari tali yéene kaay bi dama El Hadj Ousseynou Diouf day ña ngay wax ni léegi NGB ñaari tali lay football Le Soleil yéene kaay ne kan 2017 bi day seetaan ko di la dëgër lool ndax la ñu laaj télé yi ci droit de retransmission moo ëpp ba jéggi dayoo moo tax it ñoom télé yi daal fépp nañu enquête ne démb day la am ca ndar géej ëpp na jumaa bu imaam rawaan ngom imaam ba nee ñu nam ko yoree baaxul askan wa mere ko ba futtu naaw ba mu jiitee julli ba noppi askan wa yëpp dañu ko xaar ci buntu jumaa ba ngir defar ko soo déggee defar nag mooy dóor ko ba mu tëdd moo tax it imaam bi day police la woo police moomee moo ko xettali génnee ko ci biir jumaa ja lu ko moy te imaam baa nga woon hôpital wala almeer ya ëpp naam ëppul